fa in kaanat ndem nekk na saalihatan di aji baax xaalat mu ne xaddimoon yi gaaw leen yóbbu ma xaddimoon gaaw leen yóbbu ma in kaanat ndem nekk na xayra zaalihatin du aji baax xaalat mu ne yaa way laxaa way toskareem fekk ci moom lay dellu ay na del sarboona ana fu ñu jëm biha ak moom aljinaasa da ci jublu li ñu dugal néew bi sangee ba sàng ko ba noppi dañ koy dugal muy aljinaasa la jublu foofu yes ma xam dana dégg sawtaxa kàddoom nga kullu shayin lépp lëf lu mën doon ilal insaan dara nit wala samihahu doonte déggoon na ko sànqa mu xam wala mu faatu daañu wax sànqa jubli ci washiya alayhi daañu wax itam sànqa jubli ci maata mu ne Abu Saxiid ne yonante bi dane woon suñu sang yi bi nga sàng ko ba teg ko ci fañ koy dugal ngir yenu ko yóbbu ba nit ñi tàmbali koo yenu seen bokk di ko yóbbu mbaa ñu di ko jàppoo bu fekkee ne ku baax la day yàkkamti ñu àggale ko fa mu jëm naa gaaw leen gaaw leen yóbbu ma fa ma jëm bu dee nag ku baaxut nag moom day wax ko toskare jaay fekki ana fu mu ma jëmale te loola muy wax nee na lépp lépp ay dégg kàddoom ba mu des doomi aadama ñàkk doomi aadama ñàkk dégg nag kàddu googu yërmaande la ci moom ndax nee na bu ko doomi aadama déggoon faaw mu xam wala mu faatu rawaahul buxaari yu wa an ibni mas'udin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ajjana aqrabu moo gën a jege ila ahadikum jëm ci kenn ci yéen min shiraaki na alihi ci waru dàllam wa naaru sawara it mislu saalika kem loolee la rawaahul buxaariyu hadis boobu daa mel ne jiitu na ci gannaaw ibnu Mas'ud dana yonent bi woon nit day àjjanaam li ko waru dàllam di jege jege li ko àjjanaam jege ko raw waaye sawaraam it noonu la mel boo war wax ne rek nit du ko yóbbu àjjana dafa yomb du ko yóbbu ci safaan ba itam yomb xam ne yu baax yi mën a def ba dem àjjana daa bari waaye nag safaan ba itam yee ko mën a yóbbu sawar nañoo bari ko defee kon war naa farlu ndax dafa jaxase yooyu yaara baabu fadlil bukaay lii mooy buntu ngëneelal jooy min xasyatillah gi ragal yàlla taxalaa wa shawqan ak ngir sopp illee jëm ci moom day wax jooy ngir ragal yàlla ni mu amee solo qaala allahu taala wa yaxirroona ñu rot lil adxaani ñeel daaji sikkim ya yabkoona mbir moom danañu jooy wa yasiiduhum te mu leen dolli xushuu'an ragal yàlla kon ma nga ca surat isra laay ba tolloog téeméer ak juróom-ñeenteel ñi nga xam joxoon leen xam-xam ci njëkk loolu ñu yoroon téere yu njëkk ya buñ déggee alxuraan dañu xam ne rek lii alxuraani yàlla dañuy daanu di sujjóota ko jooy lañ dégg doon leen ak ragal yàlla wa qaala taala afa min haadal xadiisi ndax ngir bile nettali taajaboona ngeen di yéemu wa tadxakoona te ngeen diree wala tabbukoona te du ngeen jooy lu nga ci suurut najmi laaya ba tolloog juróom benn fukkeel te yedd rek yéefari ni seen ñu dégg alquran biñ ko déggee di ree far a jooy te gëm bu leen di yedd ci loola waxaan ibni mas'udin radiyallahu anhu qaala xaala waxoon na lii ñeel ma annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma iqra jàngal xale ci man alquran alquran kultu ma ne ko yaa rasulallaahi aqraw danaa jàng xaaleyka ci yow wa xaaleyka te ci yow un si la la wàcceef ko xaala ne ma indi naka man uxibu danaa sopp an asmahahu ma dégg ko min xayir yi ci kudul man fa qaratuma jàng xaal yi ci moom suratan nisaa yi xataa jiitu ba ma dikk mooy ba ma àgg ilaa haadihi l aaya ba ci bile laaya su borom naa ko fa kayfa naka la def isaa ji naa ndeem dikke nanu min kulli ummatin ci bépp xeet bi shahidin ci aji seere wa ji naa te nu dikke bi ci yow muhammad shahidin nga aji seere xalaa haawulaay ci ñii laaya bi tolloog ñeen fukk ak benn ci sóoratu nisaa xaala ne mu ne ma xas bu ko doy na la al aana léegi yemal foofu doy na faltafattuma geestu ilayhi jëm ci moom fa isa xaynaahu am ci lu may ñaari bëtum ña tabri fan danañu sotti ay rongoñ addis boobu muttafaqun alayhi la ibnu Mas'ud ne yonent bi damaa waxoon ne ma jàngal ma alquran ma dégg mu ne ko ah ñu wàcc ci yow alquran ma ko ma koy jàng ngay dégg xanaa yaa koy jàng kay may dégg loolu da koy yéem mu ne ko damaa bëgg keneen di ko jàng may dégg loolu dama koo taamu lool dina ma tàmbali ba agsi ci laaya bis nu waram naa yonante bi su bis ba xeet wu ne ñu indi seen bi ci ne jot li woon na war a jot li ñoom ñoo gàntu ci ñi lay weddi ne naka ma agsi foofu rek ne ma doy na doy na yemal foofu ma geestu xool ko rek bët yi sotti koy ay muy mu ndax mbir mu tis moomu lu mu jàkkaar lool waxan anasin radiyallahu anhu qaala xataba xutba woon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xutbatan ab xutba maa samiatu boobu mësuma mislaha bu mel ne moom xat mukk fa qaala mu ne law taalamoona doonte da ngeen xam maa li nga xamee ni aalamu danaa ko la daxiktum kon ngeen ree xalilan tuuti wala bakaytum ti kon ngeen jooy kasiran lu bari qaala nee faxataate muur asxaabu rasulillahi saxaaba yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wujuhahum seeni kanam walahum te ñeel na leen xaniinun jooyug xaram jooyug xundug xaram muttafaqun alayhi wa sabaqa jiitoon na bayaanuhu ak birélam fii baabil xawf dañoo toll ci bunt jooy rek ngir ragal yàlla tax ñu baamu ko waaye nee na waxoon nañ ko ci baabul xawfi anas moo nekk li na yonante bi mas naa xutba xutba bu tàng tàng boo xam ne mësuma dégg mu xutba bu na tànge ba agsi ci wax ne su ngeen xamoon laa xam da jooy lu bare bari te reelu néew néew nee boobee nag saxaaba yëpp dañoo marché ci muur seeni kanam ñoom ñëpp di jooy jooy yoo xam daa ànd ak xund xaram jooy métte métte wa abi hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yaliju du dugg annaara sawara rajulun waay bakaa jot jooy na min xashatillaahi ngi ragal yàlla xataa yaodam ba te delloo àlla banu sow ma fi daraxi ca batt ba wala yeji tamihu te du daje gubaarun pënd fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa duxaanu jahannama ak saxaras jahannam rawaahu tirmidiyu wa qaala xadisun xasanun saxiix abu hurayra ne yonent bi nee woon képp ku jooy ngir ragal yàlla day mën ngaa wax ne rek sag dem sawara lu jomb la ndax li fekk mënista delloo soow ci batt bañ ko ratte woon te loolu lu jafe-jafe la soow mi nga ratte ci batt bi mu génn nga delloo ko ci batt ba nam jafee daal li fekk loolu mënta am kon képp ku jooy ngir ragal yàlla itam sag dem sawara noonu la mel mook lu mënta ama mu ne itam dox ci jihaad ci yoonu yàlla ba say tànk fundooñ mbaa say sër mbaa lu bokk ci sa yaram bu taseek sa xaru su mooy day wane rek ne dem ci jihaad te sellal ko ngir yàlla ku xas def rek mucc nga ci sawaraw jahannam wa anhu jële ci abu hurayra qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaxatun juróom-ñaar yo dilluhum dina leen keral allahu yàlla fii dillihi ca keram nga yowma laa dilla ci bis ba nga xam dit ker illaa dilluhu ndare keram nga imaamun ma ilimaan haadilun judi aji maandu wa shaabun ak aw waxambaane nasha awoo sosu na fi ibadatillah ci jaamu yàlla taala kawe na wa rajulun ak waay xal bu foo jot mu àllaqun luñ aj fi masajidi ci jàkka ya wa rajulaani ak ñaari waay taxaaba ñun soppante nañu fillaahi ci yàlla ijtamaha daje nañu alayhi ci soppante ci yàlla ko tafarraqa te ñu teqalikoo alayhi ci moom wa rajulun ak waay daaxatu jóg woona ko imraatun jigéen daatu mansibin kuy boroom daraja wa jamaal akub taar fa mu ne ko indi naka man axaafu dinaa ragal allah yàlla wa rajulun ak waaye tasaddaqa jóg saraxe na bi sadaqatin ci sarax fa axfaaha mu làq ko xataa laa taalama ba du xam chimaaluhoo ak càmmooñam maa la nga xam ne tunfiq dana ko dundale yaminuhoo ab ndeyjooram rajulun ak waay dakara jot tudd na allah yàlla xaaliyan mbir ma muy aji fa faadat te sottiku ay naaxu ñaari bëtam muttafaqun alayhi ba tey Abu Hurayra ne yonante bi daa waxoon ne juróom-ñaar ñi day suñ taxawee bis penc ba ker jafe lool yaari ker rek nekk fa kerub yàlla gi ak kenn ku ne la nga daan saraxe sottiku ker tiim la juróom-ñaar ñi moom yàlla leen di dugal ci keram googee keral leen mu jëkk ilimaan ju maandu ilimaan jubluwuñ ci rek kuy jiite julli dañoo jublu ku jiite mbooloo ni kii moo xam xalifa la ci julli ñu daal am xalifa wala rek ku jiite mbooloo daal te maandu ak ñoom ca fa yàlla yonte bi rëdd ko kenn la ci ndax loolu dafa jafe ak ndaw loo xam ne ndaw ga tax koo jëfe jëfe ndaw ba mu doon doon ndaw dafa daal di farlu rek ci bëgg yàlla sox ci topp ko ka ko ñetteel mooy koo xam ne xolam dafa taq ci jàkk ji mooy saa yu ne bu ñu wootee mu daal di waax wuy ji te saa yu ci génnee ma ngay séentu ñu woote waat ba mu delluwaat xam ne moom daal mu ngi bàyyi xel jàkk ji saa yu nekk mu teg ci ñaar ñoo xam ne dañoo soppante te yàlla dong tax xam ne bëggante ngir yàlla ca la ñu tase nekk ca ba nañ tàggoo teg ca waajoo xam ne jigéen ju am ja amub taar da ko woo bëgg a moom yàlla mu ne ko man day ragal naa yàlla xalaatuma def lu bon loolu mu teg ci koo xam ne bu dee def lu baax ni ki saraxe da koy làq ba nga xamee ne la loxob ndeyjoor bay joxe bopp càmmoñ ba du ko xam day wax rek ki nga xam ne day saraxe te di ko làq bu baax a baax ba ci sax loxo ndeyjoor moom mooy joxe waaye boobu càmmoñ sax du ko yëg loolu lu jafe-jafe la bu mujjee wax na koo xam ne dafa wéet fàttaliku màggu yàlla maanaam bu tudd ko ci làmmiñam boole ci waaye moom daal fàttaliku na yàllaa ko màggam ragal ba daal di jooy te muy ci wéetaay ndax loolu ci wéetaay lay gën a jafee ndax maanaam bu dee ci mbooloo kenn jooy yëngal ay jooyam waaye mel moom rek mu wéet fàttaliku yàlla ba ay rongoñam sottiku kooku bokk ci ñi xam ne bu ëllëgee yàlla dina keral ca kaam googee waxan abdillahi ibni shixir radiallahu anhu qaala ataytu dikkaloon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa te mbir moom moom julli wali jaw fii te ñeel na biram ba wala ñeel na dënnam ba asisun coow wala kàddu jooy ka asisin mirjëli ku mel ni wañaxuk cin kàddu wañaxuk cin minel bukaay ngir jooye walu xadisun saxiixun rawahu abu daawud wa tirmidiyu fi shamail bi isnaadin saxiix abdullahi moomu nee daa ñëwoon fekk yonent bi di julli waaye mi ngi dégg ab danum muy riir ni nga xamee ne moom la cin lu di riire ndax rek teelu màggaayu yàlla ak ragal ko waxan anasin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa li ubay kaabin yonente bi waxoon na ubay kaabu radiallahu anhu ko inna allah naka yàlla xazza tedd wa jàll te mu màgg amara nii na ma an aqra ma jàng xaleeka ci yow lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina mun fakkiina xata taatiyahumul bayina muy laay ba jëkk ci furatul bayina xaala ubayu ne ko wa te tudd na saaw tur xaala mu ne ko na xam waawaaw ba te jooy ubayu ubayu hadis boobu muttafaqun alayhi la wa fi riwaayatin fa jaxal ci tàmbali ubayun ubayu yebbu kii di jooy anas ne bi daa ma ubayu nu kaa bu ne suñ boroom moo ne ma naa jàng ngay dégg lam yakuni alladina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikin munfakin xata tatiyahum bayina rasulum min allah yatlu suhufan mutahara ñi weddi ci yahood yi ak nasaraan dañoo jàppoon naka jekk ne am na ko yàlla yónni mi ak yonante ci mujjub jamono ñu defoon na ci ñoom lay bokk bi mu nag di Muhammad bokkul ci ñoom nag ñu door a weddi ubay moomu nag daa bokkoon ci ahlul kitaab te bokk ci waa lislaam yonent bi ne ko saa borom ne naa jàng ngay dégg jooju ubay ne ko ah naa jaar ni saw ne la jàngal loolu ubayu dégg ne ko waaw saw la tudd kay xala na xam jooju ubayu daal di jooy ndax ndég ci tudd gi yàlla tudd aw turam ne yonante bi jàngal loolu ubayu dégg beneen net li ba ne ubay daal tàmbalee jooy waaye maxnaa yi benn la wa an jële ci anas qaala qaala waxoon na abu bakarin abu bakar li xomara radiallahu anhuma baada wafaati rasulillahi ci gannaaw faatu yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam in taliq boyal mooy dikkal dem bina ak nun ilaa ummi aymana jëm ci ummi ayman radiya yàlla na doole gërëm allahu yàlla xam xaa walis ummu ayman nazooruhaa nu siyaare ko kama kaana niki nake woon rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko siyaare fala mën taxay naa ba nu àggee ilayhaa jëm ci moom bakkat mu jooy fa xaalaa ñu wax laxaa ñel ko ne ko maa ki lan moo lay jooyloo ama taalamiina ndax doo xam ne annama naka la nga xam ne indallaahi nekk na fa yàlla xayrun moo gën li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaalat mu ne na naka man laa abki duma jooy anni ngir naka man laa axlamu la nga xam ne indallaahi nekk na fa yàlla xayrun moo gën li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walakin waaye man abki dana ànd na wax yu ngir naka wax yu ko xadim xatax dog na mina samaay tukkee ci asamaan fa xayee jët xumaa te mu jeqi leen ñoom ñaar te mu yan leen alal bukaay ci jooy fa jaala ñu tàmbali ñoom ñaar yebki yaan di jooy maxaa ànd ak moom rawaaxu muslim waqad sabaqate jiitoon na it fii baabi siyaarati ahlil xayri ci buntub siyaare ñooñ mbaax lii weesu woon na ko ca baabu ziyaarati ahlil xayr anas moo nettali ne abubakar gannaaw bi yonante bi génne àdduna abubakar daa wax omar ne ko kaay nu dem siyaare ji ay man ni nga xam ne moom la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daan siyaaree naka ñu àgg rek mu tàmbalee jooy moom ummu ayman ñu ne ko waaw lu lay jooyloo nii xanaa bu dee yonent bi tax ngay jooy moom lee mu nekke fa boroomam moo ko dàqal moo gën ci moom li mu woon fii ci àdduna mu ne leen loolu taxul may jooy wóor na ma ne la ko yàlla defal foofee mu nekk tolloowut ak li mu woon fii ci àdduna lima tax di jooy kay mooy wax yu gën bàyyi ko ci asamaan jaar ci jibril ñëw ci moom jaar si ci ñun loola lan amatut loolu laa fàttaliku nag ni ñàkk nañ ko moo tax ma jooy ñoom ñaar itam ñu tàmbalee jooy ndax jooy soxna soosu waxan ibni xomara radiallahu anhuma qaala lamma ishtadda bataree bi rasulillahi ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wajaxuhu metitam wax ci mbirum julli ga fa qaala mu ne muroo digal leen aba bakrin fal yu salli binnaas ak nit ñi fa qaala te wax aïchatu radiallahu anha inna aba bakrin naka aba bakar rajulun waay la raqiixun ku aji wayaf ab xol ida xaraa bu jàngee alquraan alquraan xalabahu dal koy not al bukk aw jooy fa qaala yonent bi ne muroo fu digal leen ko rek fal yu salli na julli ak mooy na leen jiite وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت منكم إن أبا بكر نك أبا بكر إذا قام بتخوي مقام كجس تخوي لم يسمع دمنا دقل الناس نبنى نلبكاء غير جوي متفق عليه عبد الله بن عمر moo net li ne bi yonante bi tawatee tawatam jooju nga xam ne ci la génn àdduna te métti bi jàpp ko mënta jiitee ti julli ga dañ ko ne julli day jot na mu ne dañu wax Abubakar mu jiite nit ñi soxna Aïcha ne ko Abubakar day te borom xol bu woyof bu dee jàngal Alxuraan du mën a téye boppam ndax jooy mu ne wax leen ko rekk mu jiite am na beneen nett li bu ne soxna Aïcha ne ko Abubakar day bu taxawee fa nga daan taxaw dana jooye jooy ba kenn du mën a xam la muy jàng waaye mu ne ko rek digal leen ko na jiite hadis boobu muttafaqun alayhi la waxan ibrahim ibni abdirahman ibni ibni awfin radiallahu anhu utiye dikkeef na ko bi taxaamin ci aw ñam wa kaana fekk na nekkoon na saayman di aj woor fa qaala mu ne qutila rayeef na mus'ab ibnu xumayrin radiyallahu anhu wax wate moom xayrum moo gën min ñi ci man kalam yuy jot te fekk fut la ñeel ko maa xam ne yu kaffanu def na ko sàng fii ci moom illaa burdatul dari ab moo xam ne in xuttiya ndéem muréef na bihaa ca moom rasuhoo boppam ba feeñ rijlaahu ñaari tànkam wa in xuttiya ndéem muréef na bihaa ci mbub moomee rijlaahu ñaari tànkam ba daa feeñ rasuhoo boppam tumma busita topp tàllaleef lanaa ñeenu mi ne duniyaa ci àdduna maa lii nga xam ne busita tàllaleef na ko aw xaala wala mu ne boot ontinaa joxeef nanu mi ne duniyaa ci àdduna maa lii nga xam ne ontinaa joxeef nanu ko xadd xashinaa ragal nanu antakkoona bu nekkee xasanaatu naa suñu baax baax xujj lat dee fi gaawe leen danaa ñeel na su ma jaxala topp mu tàmbali yebb kii di jooy xataa paraka ba mu bàyyi ak taxaama ñam wa rawaahul yu ibrahim mi nga xam ne abdurahmaan ibnu xawfu moo ko jur moo nag li ne abdurahmaan ibnu xawfu daa wooroon ñu andil ko aw ñam ngir mu doge ca xëy na ñoom wa daa xéewale ci moom mu fàttaliku démb tolluwaay yu tiis yu metti ya ak léegi si ni àdduna neexe ci yooyu jamono mu ne Musab ibnu Umayr day nattable mu ne moom a gën te ba mu génnee àdduna day benn bubb dong la amoon moo xam ne mënu ko woon sàng ba mu daj suñu muuree bopp bi tànk ya di feeñ bu ñu muuree tànk ya bopp di feeñ nun nag ñu dama dem ba yàlla yaatalal lu àdduna nii ah man de ragal naa ne lan defoon ci lu baax day nu ko daal di gaaw fay xaat ci àdduna ba yàlla buti bu demee foofe duñ fa fekk lu ñuy fayaat ne daa wax loolu ba noppi nag tàmbali jooy ba far bàyyi ñam woowee ba tey lekku ko maanaam daa wooroon waaye ba tey farut bokk tey mi ngi toll ci buntu bi rek jooy ngir ragal yàlla ak ngir fàttaliku ëllëg ñu mu amee ngëneel yooyu tudd yëpp xeeti jooy am na ci waxan abi umamata sudda yibni xajlaan albahili radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa shay'un déet dara ahab di gën a sopp ilallaahi jëm ci yàlla taxala min qatratayn ci ñaari toq wa asarayni ak ñaari saawo xatrati dunuuhin dàquk ay rongooñ min xasiyatillaahi ngir ragal yàlla wa xatrati damin ak dàquk deret tuhraqu def na ko tóor fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa amal asaraani daal ñaari saawo ya fa asarun mooy saawo maanaam mooy jeexiti ndëggu fi sabilillahi ci yoonu yàlla taala wa asarun ak saawo fii faridatin ci ci farata min faraidillaahi ci farata yàlla yi taala rawaahu tirmisiyu wa qaala xadisun xasan abu umaama mooy dàkkantaluy suturday yëpp nu xajlaan mooy turam ne yonante bi am na yaari toq yoo xam ne moo gënal yàlla ci mboolem xeeti toq yi am na itam yaari saawo muy ñaari jeexit ndëggu yoo xam ne ñoo gënal yàlla ci mboolem saaw yi yaari toq yi yàlla gën a sopp mooy bët bu jooy barongoñ tuuru ngir ragal ko moom yàlla ba ca des nag mooy ku doon jihaad ci yoonu yàlla ba toq deretam tuuru mu yaari toq yooyu yaari saawa yi moom mooy nit ki dox ak tànkam ci jihaad ci yoonu yàlla ak jéggi ak ndëggoom jëm ci jullit farata ci julli farata yi mooy yaari nekk bunt bi ahadisu ay hadis katirat ni aji min xaa bokk na ca xadisul xirbaa bitni saariya anhu qaala waxadana waaroon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wajilat boog jàqoon na min xaa ca moom alxuluubu xol ya wa barafat te sotti ay rongooñ min ngir moom alxuyuunu bët ya wa qad sabaqa te jiitu woon na fii baabi nax yi ci buntu tere ga anil bidaay walis xeeti bidaay yi nee na boo dee seetlu nii yi tagg jooy ngi tagal yàlla ak lu ko nuru moom dañoo bari lool ba man nga caa boole ba ñu weesu ca baabu nax yi anil bidaa ne alxirbaab ibnu saariya nee na woon yonante mas nanoo waar waare tàng-tàng goo xam ne xol yi dañoo tiit ba bët yi sotti ay rongoñ rongoñ yu bari bari baabu fadli zuhdi lii mooy buntu gëneelal dëddu fi duniyaa ci àdduna wal xarti ak ñaaxe xalat taqalulu ci néewlu min xaa ci àdduna wa fadlul faqri ak ngëneelal ñàkk day wax ci bunt bi wan gannaaw àdduna te dëgmal yàlla ni mu amee solo ak it gaaw a ci àdduna loo ci am rek mu doy la ak it ku yàlla teg ak ñàkk te mu sant ca amuy amee ngëneel bu ëllëgee qaala allahu taala innama masalul xayaati naka misaalum dund gi ak gën a suufe waa boo ko boolee ne innama masalul xayaati dunia naka misaalum dund àdduna gi kama in mu mel ni am ndox anzal naax moom wàcc nañ ko mina samaay ci asamaan faxtala te jaxasoo bii ak moom nabaatul ardi gàncaxu suuf si mimmaa ci la nga xamee ne yàqul dana ko lekk annaasu nit ñi wala anham ak jurikër yi xata ida axadat ba nga xamee ne jàpp na al ardu suuf si zuxrufaha taaram ba wa zayyanat te mu waaj mooy te mu rafet lool wa zanna te jortu baate woonu ahluhaa ñoom moom suuf si ni annahum naka ñoom xaadiroona way jekku lañu alayha ci moom ataaha dal koy dikkal rek amrunaa sunu mbir tey leen ci guddi aw nahaan wala ci bëccëg fa jaal naaha te mu mujjal ko asiran mel na lu ñu ka an lam tax na mel na mëstoon a sax mbaa mëstoon am bil am si ci démb te daalika noonu nu farsil la ñuy teqalee ayaati laaye ya li xaw mi ñeel aw nit yatafakkaroona ñu mën ñu xalaat kon ma nga ca sóoratu yunus laaya ba tolloog ñaar fukk ak ñeent suñu borom ne misaal adduna day ci ni nga xamee ne moom la mën a taaroo nii saas saasu bu jékki-jékki mel ne bu sufaa am mi ngi mel ne rek yàlla wàcce ndox mi ci asamaan suuf ci tooy daldi saxal gàncax gu rafet rafet boole lu nit ñi lekk muy xeeti mbay yi ak lu juri kër yi lekk nga xool daal àll bi mu naat lool ci xeeti mbay yeeg xeeti gàncax gi ci des ba melee na nag loolu day sax di wéy rek nit ñi jekku nañ ko te mën nañ koo téye du tàggoog ñoom mukk mukk yàlla jekki-jekki benn bis rek andi ngelaw lu tàng jër lépp daal di wow nga di gis jur gi jaar fi dëggaate ko nappaaje boo mel ne da gisoon démb ci taar dafay jaar rek jàll noonu nga xam ne moom la suuf si rafete patar bu ñëwee asamaan si patar bu asamaan si ñëwee ak gannaaw bi na muy jekkee jekki wow xooy mujj naaw rek gannaaw ba mu woy